see the colors of the rainbow. And I can feel the sun on my face. I see the light at the end of the tunnel. And I can feel heaven in this place. And that's the sign of a victory. That's a sign of a victory. sensations. And I can feel my wings riding the wind. Yeah, I see the finish line just up euh, aujourd'hui euh, samedi 4 février muy randonnée boo xam ni c'était pour la sensibilisation. des artisans euh, pour le développement du secteur de l'artisanat. Ensuite, euh, leur sensibiliser aussi sur la formalisation. Une voilà. fois aussi pour nous, pour, pour Manam Niachli, c'est la formalisation. Parce que nous, nous avons un métier pour Paris. Nous avons gardé nos métier. Nous avons gardé nos métier aussi. Nous avons formalisé. Nous avons formalisé Paris aussi. Nous avons gardé nos métiers. Nous avons gardé nos métiers. Nous avons gardé nos métiers. Nous avons gardé nos métiers.

nañu bàyyi xel rek. parce que dañuy randonnée bi peut être mooy gën a mooy mooy mooy doon loo xam ni dina mën a ratisser large parce que bu ñu ko defoon match de football wala bu ñu ko defoon euh, man nañoo yem fenn mais bu ñu defee randonnée ñu sillonné euh, daanaka li ëpp si Malika yu ko comme euh, maanaam si si si commencement ba si ba si cat ba donc dina mën a permettre si ñi nekk si biir kër yi ñi togg añ ñi nekk si buntu kër yi ñooñu ñëpp bàyyi xel ni association bi tax tey ñëw nañ pour si wàllu pour que ndaw ñi war a mën a dem jàngi métier parce que ñu leen di jàngal métier ñu ngi si dëkk bi te nekk nañ fi kon donc nañu jàpp suñu doon yi accompagner leen mën jàng si aussi le club euh, Marc muy Malika Randonnée Club parce que bi ñu amee idée bi rek dañu ne dañuy dem xool spécialiste yoo xam ne ñoom ñoo nekk dans ce domaine parce que nit bu nekk ak métier nekk ak am te ñoom ils ont l'habitude de le faire moo tax ginnaaw bi ñu ñëwee ñuy gërëm le président Keita avec son équipe de président de Malika euh, ñu ñëw tey ànd ko mu doon l'utile l'agréable maanaam ànd ko dem euh, sensibiliser boole ko tàggataale tàggataale suñu yaram waaw parce que bari na si ñoo xam ni ba ñu gëjee ñàkk yàgg na surtout message bi ñuy lancé rek parce que sport dañ koo xam si sport day boole sport aussi du violent kon donc peut-être xamna sensibilisation bi muy wax rek au nom de notre organisation muy ay ay ñu euh, association des créés ci Malika li ñuy wax rek moy mbir mi du du mbiru du mbiru noononte compétition ku ko wax xam ni da ngay am foo bokk keneen am foo bokk keneen am foo bokk parce que loolu mooy sport parce que ki gagné tey suba mën naa ñàkk ki ñàkk tey suba mën naa gagné kon donc dañuy woo ñëpp rek non à la violence parce que stade bi daanaka suñu la département moo fi am kon donc ñun ñoo ko war a préserver ba képp ku soxla si département bi si man koo jëriñu donc loolu moom c'est notre rôle aussi gën a def benn campagne de euh, euh, médiation en fait pour que ndaw ñi mën a xam bijou bi ñu am ñu mën koo jàpp man koo conserver mm-hmm.